dafa am lu doy waar lu xew muy euh, Dubaï porte à porte yi Dubaï porte à boo koy dégg euh, mooy ñiy dem Dubaï am fa contrat boo xamante ne porte à porte yi mooy douche portable porta à mooy douche portable maanaam dafa am ñoo xamante ne tey jii dañ leen a jënd ni ma ko mën a waxee wala dañoo signé contrat boo xamante ne di ay jigéen. di ay influenceur wala influenceuse ba d'ailleurs damay damay damay taxaw ci baat boobu lan mooy influenceur Sénégal Sénégal war nañu taxaw di jàngat baatu influenceur lan la xam nga dañ naan diw influenceur la mais influ influenceur mooy ki nga xamante ne tey jii gis nañ ko ci réseaux sociaux yi mu am buzz maanaam kuy def buzz soit muy ku nekk une tiktokeuse wala moo ko koo xamante ne tey jii daanaka Miss Sénégal la ñu ngi def Miss wala animatrice télé bu siiw wala wala wala snappeurs yi ñooñu ñooñu ñooy influenceur parce que tout le temps dañuy nekk ci milieu boo xamante ne ñëpp dañ leen di xam ñooñu nag daf ci bëri ñoo xamante ne tey jii euh, ñu ngi jaabante Dubaï di dem di dikk y' a 43 fii yoo xamante ne Sénégal lañu jut lañu lañu lañu la bokk ci mbir moomu ñuy wax 43 lañu waaw am na ay tiktokeuses hmm, am na aussi ñi nga xamante ne ay Miss Sénégal lañu. am na aussi ñaari animateur yoo xam ne animatrice yoo xamante ne ci télé lañ nekk ñun nag tooguñ fi di tudd tur parce que boo tuddee tur da tooñ magum jëmm euh, majeur et vacciné bu tànn dem Dubaï dafa def yu ñaawteef yooyu kooku moom la concerné mais dafa am fi ma njëkk euh, fi ma njëkk tàmbale euh, gis nga jën dafa am lu am solo loo xamante ne tey ji war nañ ko waxtaanee dafa am ñoo xamante ne ay victimes lañu gis nga jigéen dafa war a am dafa war a sàmm boppam alalu àdduna warul jaral jigéen tey ji mu jóge Sénégal ba Dubaï pour lan pour di fa subir ay affaires yu doy waar am na jigéen yoo xamante ne tey jii dañ leen signaloo contrat contrat bi ñu leen signaloo mooy boo demee Dubaï contrat bi nga fa am mooy da ngay liggéey mindaan jànq nga fay liggéey ñu lay fay par weer contrat boobu nga ki la ko jox muy un démarcheur ñu bëri xam nañ li may wax ay démarcheur sénégalais ñoo nekk fii di démarcher ay jigéen pour yóbbu leen Dubaï wala Arabie Saoudite ñu fay liggéey.

fekk yow jigéen ñu bari tey jii ñu ngi foofu ñenn ñi Arabie Saoudite la ñu nekk ñenn ñi Dubaï la nekk bi ñu ñëwee aussitôt bi ñu leen ñëwee dañ leen dugal ci benn néeg ñu bëri xam nga lu ñu leen def yéen ay prostituées lañ leen def parce que boo xasee ba dugg ci nekk yow ki la signal fii démarche bi daf laa jaay jaay la naar bi naar bi nag moom aussi ci contrat bi mu yor daf la daf laa jënd léegi yow boo ñëwee yow da jàpp ne da ngay pour liggéey liggéeyu jànq nga ñëw mais ñoom dañ la jàppee jaam. bëri na nit ñu ñuul ay xale jigéen yoo xam bi ñu tàggoo Arabie Saoudite ba léegi kenn tegaatu leen bët bëri na xale jigéen yoo xamante ne Adja bi ñu tàggoo aussi Dubaï kenn tegaatu leen bët seen mbokk yaa ngi jaaxle nekk ci njàqare nekk ci tiis xam nga lu tax c'est parce que ñoom dañ leen a jaay naar yi naar yi xam nga lu leen di def parce que lii confession la boo xamante ne benn xale bu jigéen moo ma ko def bu nekkoon Arabie Saoudite moom dafa fexe ba ab téléphone woote xam nga lan lañ koy def maanaam naar dañ ko dugal ci benn néeg néeg boo xamante ne ku soxla day ñëw tëddee ci journée bi benn yoon lay lekk mbokk yi nañu téye suñu jigéen ñi fii ci réew mi xale bu jigéen boobu benn yoon lay lekk dans la journée nee na parfois fukki góor danañ ko danañ ko tiim di ko tëddee xale yi sax ñi bëgg jàng sëy ci moom la ñuy jàngee sëy ba pare dañuy jël yat ko ko dóor man ni ku yor mala motax tay ji dekk yoy nga xamantene souvent dekk diine la ay mbir yu doy da fay am parce que jàppewuñ nit ku ñuul nit ñom pour ñom nit ku ñuul buñ ko gisee rek jam la re jigen ñu bari nak yéen nga fatali ko histoire mbayang mbayang euh, histoire bu demee noonu la femme bi ko ñu ko tecc ci kasso bi femme bi 11 coups de couteau la kon mbayang jam lan motax mbayeng mbayang jam ko c'est parce que dafa maron c'est parce que dañ ko jappé won jaam c'est parce que dañ ko jàppoon objet sexuel légui problème mu Dubaï bi euh pour ma ñëw ci vraiment dafa am dafa am lo xamantene lu lu lu doy war la affaire affaire Dubaï bi euh, foog ma joxe ci information bi nga xamantene ne ñi mom lañu am moy euh, ñi nga xamantene ño fa ño ñoo fa nek waaw parce que bari na tay ji ay jigen ño xamantene tay euh ñu ngi dawal ay 4 4 ans fi ci réew mi ñu ngi ñu ngi dëkk ci appartement di fay huit mille par mois di ay influenceur fan lañ ko jëlee chaque semaine ñu tàggu la ne maa ngi dem Dubai ah, mais xam nga nag gis nga réew mi nañu waxante dëkk chaque semaine ñu ne la maa ngi dem Dubai mais lan la ñu ut Dubai bu ñu ñëwee fii dawal oto bu rafet ñu naan gelu ministre ba c'est pas vrai du ay gelu ministre mais ñooñu seen bopp li ñu ut Dubai ñëpp xam nañ ko lii réew porte à porte bii lu gën a garaaw la ñuy def. Euh, damay ñëw rek ci ci ci information yooyu fii Sénégal Sénégal am nañu 43 filles 43 filles yooyu bokk na ci 11 miss jigéen ñi 11 miss ak 14 tiktokeuses moo ñu ne ci tiktok bi 14 tiktokeuses ak ñoo xamante ne tey jii booy xool euh, ñaari animateur yoo xamante ne télé rajo lañ ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen gis naa kenn ku ci wax mais moom du ma tudd turam ca la bokk am nañ information yu leer que ne moom mi génn ci réseaux yi. di kaas moom ca ñooñu la bokk parce que chaque semaine mu tàggoo Dubaï chaque semaine mu ne maa ngi dem Dubaï maa ngi am lu mu fay def mais li mu fay def leer na xam nga alalu àdduna bu leen jaralee tey jii ma wax na tey euh, dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay groupe yoo xamante ne ñooy dem Dubaï ak lañ fay def bu njëkk bi mooy dafa am jigéen ñoo xamante ne tey jii naari leen dafay xaalis bu bëri xaalis boobu li leen ji fay mooy dafa bokk ci euh, li nga xamante ne mooy ñoo xamante dañu dem uniquement hmm, pour prostitution ñooñu nañ dem ba chaque mois ñu ba ci chaque semaine ñu gagné 10 millions prostitution mo leen fa yóbbu. prostitution boobu dafa am ñeneen ñoo xamante ne lañ fay def muy zoophilie zoophilie mooy da ngay dem naar bi ne la man li ma intéressé mooy nga sëyeeg sama gëlëm bi nga sëyeeg sama xaj bi wala nga sëyeeg mala loolu mooy zoophilie te am na sénégalaises yu jóge fii ak africaines yoo xamante ne fa la ñuy dem di sëyeeg mala yooyu naar bi di leen fay xaalis beneen bi mooy. naar bi day séq ak yow li ñuy wax partouze partouze mooy euh, ngay ngay jigéen di say groupe ci par ci partouze boobu dafa bokk ci contrat bi nga xamante ne moom nga signé ak naar yi ñi nekk Dubaay mooy yow am nga am nañ droit tey jii seq fukki góor seq la di seeg yow te seeg yow bi maanaam fu ne lañ lay seeyee fu am pax rek dañ fay seeg yow ngeen baal ma ci kàddu gi damay day leeral maanaam fépp la ñuy seey ak yow li gën a garaaw benen bi ci top moy dañuy jël ay objet diko duggal sa aura mais sañoo bañ da ngay nangu par force parce que contrat bi bi nga signé amo droit bañ dara est ce comprendre ni li gëna a li gëna graw moy lolu moy ay service corporel dafa bok ci contrat bi manam tay ji mën nañ laa jàpp jël ay yatt di la door dóor lay kurpañ ba sa kanam gi neewi parce que ñom ay vis lañu am pour seyela bu len buñu amé envie duma la dañ lay dóori kurpañ dóor la maanaam yàq sa kanam waaw parce que am na ñoom tey jii booy sëy ak ñoom dañuy bëgg nga leen di xosi maanaam ay affaire sauvage daal xam nga mais yooyu tey jii mooy wane ne tey euh, am na ñu ko nangu am na ñu koy def am na ñuy indi xaalis boo xamante ne tey jii bu ñu la waxee fi nga ko jëlee doo leen naw moo tax suñu mbokku jigéen ñi nañu def attention bu baax a baax gis jigéen buy dawal wit wit gis jigéen bu yor alal bu dul jeex nga di ko naw man de maa ngi dem Dubai Dubai laay dem de ah man de Dubai mooy sama nangam ñu tuddee ko Adja Dubai da nga xam lu muy def Dubai képp ku am doom nag muy dem dubaay jamono ji téye ko parce que kaay ma leen mbir am na sénégal yi ñuy jokkoon ñu nekk Dubai évidemment ñoom li ñu wax mooy fii xaalis yomb fi Dubai boo bëggee xaalis dëkk bu tàng la bu metti la da nga koy liggéey mais ñi fa dem tey jii bokk na ci révélation ay ay ay borom ñaari tur ay góor yoo xamante ne fii lañuy jóge jugee du ma tudd tur nag bokk ci benn corporation fii lañuy ñu jugee dem Dubaï yéen seen mboroomi góor di leen sëyee ay góor yu def zoophilie maanaam ay góor yu dem foofu ay xaj di leen tëddee maanaam mbirum góor jigéen lépp looy séntu ci bon Dubaï la ëppee kon nag gis nga message mooy jigéen ñi euh, dañ leen war a jàngal kan mooy soxna maam Jaara Buso jot nañu jàngal ñooñu ci école yi ma Adja jot nañu jàngal maanaam nit ñi kan mooy soxna maam Jaara Buso kan moom maam Fawade Wele kan moom maam Astu Jànqe valeur yooyu ñu am senegal ñu bàyyi ba tey ji ñi jóge bitim réew ñoo duñu pervertir loolu dara gën ko doy